gannaaw bu ñu santé suñu borom julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam salaam maa ngi jaajëfal euh, njiitu coalition benn bokk yaakaar ci kaw mooy la conférence des leaders euh, ak la grande majorité présidentielle d'abord de la confiance bi nga xam ne am nañ ko ci ñun d'abord pour ñu jiite benn bokk yaakaar au niveau de Diass gërëm également les différents membres de la coalition bi nga xam ne ñoom ñoo nekk Diass te tey ji ñu ngi nii ànd ak man ak ñoo xam ne ñu ngi des ci ginnaaw Euh, ñu waxtaan ci jekk ak teraanga comme ni nga xam ne moom la ko yoon waxee mooy ñëwoon nañu déposer suñu déclaration de candidature tey dañu ñoon pour déposer la liste euh, ñu waxtaan ci jàmm ak salaam yàlla def na li nga xam ne li moom la ñu sarto woon ak yoon ah, def nañ ko ba jot nañu suñu récépissé de dépôt ah, ñaan yàlla rek élection yi nga xam ne moom la ñu jublu yàlla may ñu ñu fekkee tal ak jàmm ak salaam yàlla may ñu ah, confiance bi nga xam ne moom la nit ñi am ci ñi yore benn bokk yaakaar au niveau de Diass yàlla may ñu victoire te mu gën ci ñun gën ci askan bi ah di profiter aussi di lancer un appel euh, au calme parce que élection la rek am na loo xam li jëru ko donc élection yi dafay jeex après mbokk bi continuer encore waye dal kontaan nañ bu baax a rawati nak nag leader yi nga xamne ñom ñoma gungé tay gunge tey ah ba lii ñu mën ko def ci jàmm ak salam té amul ben ciow vraiment aussi ñepp ngi déposer ci jàmm seen force de l'ordre yi ñu ngi fi alhamdulilah rabbil alamin sécurité bi amna man da maanaam fii daal l' ambiance daal day mel ya, famille be fi né rew mo dem grande coalition yi da yam problème wu liste ñepp mérité na dugg ci liste mais mënu mm-hmm. euh, ñu dugg si liste ñu dugg ci liste aussi ñu ngi leen di masawu xamal ne ñoom ña ca biir gën a ñu leen mérité ba ci man mi gënu ma leen mérité kon dañ leen wax rek ñu gën a jàpp ci liggéey bi ñëpp jàpp ci rek xam ne lu lépp gën a am mooy dëkk bi di ngekoo ñu ñëw ñu bokkale bokk bàyyi ànd liggéey ko ànd dem si jàmm ku ne fekk ko si jàmm ñu def ko ci yar def ko ci teggin def ko ci discipline loolu lu ci am solo la la ca topp nag moom eh, dans partout rek foo dem am na frustration

Réumi le Pérez, il est là avec nous aussi parce que le PDS nous xam ne ak ñun là dëkk bi il est là avec nous ak euh, société civile il était là avant aussi effectivement mais gëm nañu da Ngexo Nous gis nañu ne Ngexo en marche parce que rabbil alamin li amul woon mu fi am li jaf woon Nous na fi personnalité Ngexo boo xoolee ñu ngi ci liste bi nga xam ne mooy liste Benno Bokk Yaakaar départemental comme communal lépp. Mhm. am na ñoo xam ne gis nañu seen bopp am na ñu gis seen bopp. mais mooy li ma la wax léegi rek départemental bi euh, dëkk bi mel ni nga ko wax investir ñoo xamante ne ñu nga départemental. te am naa yaakaar aussi dana mën a bokk ci commission yi nga xam ne danañ ko joxe ci département bi yal na yàlla may ñu ndam mooy wax ji. Mhm. yàlla may ndam moom incha allahu rabbi euh, di ngeen gis département bi ay.

Euh, avec euh, de liste de candidature pour les locales de euh, janvier 2022 Nous ñu ngi nekk ci bannière la grande coalition comme ce bopp boo xam ne Bougane Gueye Dany moo ko jiite kon tey nag coow bi defe ñu dernier virage bi ndax dépôt bu ñu déposé liste ça veut dire que coup d'envoi bien que le président moo un décret convoquer le corps électoral mais des policiers, les choses sérieuses commencent. ndax ci la ñu xam kan ak kan ñan ak ñan liste nous avons également euh, ñan ñooy taxaw ñan ñooy compétir ci élection locale yi. Euh, ren euh, c'est un peu apaisé quand même. par rapport à ce que nous daan xam Nous avons daan gis. ndax aussi servir naa préfecture de Pikine yore bureau électoral bu Pikine de 1978. ba bu may retraité 2012 ainsi nous koy continuer tamit leen donc engouement yi ñu amoon yi amoon surtout élection yi passé en 2014 Nous nag bii ndax peut-être que euh, les grandes coalitions, on a constaté qu'il y a eu plusieurs grandes coalitions, dès que c'est la question ou autre chose. Mais il y a liste yu mais il n'y a pas du ci donc mais malgré tout

ñun nak dañ fay ñëw pour depuis 2009 dañu nek sur le terrain politique 17 bi nous fi nek ñu changé ko. Euh, di wax nous rabil alamin dañu euh, préparé depuis des mois et des mois Il euh, def na sorti na euh yombul won mais c'est un sentiment de soulagement c'est un sentiment de devoir accompli parce que suñu candidature mën naa won contrat avec euh, la population de la commune de Signa, mon a ñak déposer candidature euh, depuis des mois et des mois ñu euh, le chemin n'a pas été été tout facile À ay de ay khat hein. profité de remercier l'ensemble des populaires et l'ensemble des partis yo xamante accepté na ñëw coaliser ak ñun à savoir Gëm sa euh Pastef taxawu Sénégal réew mi euh, euh, par Sénégal euh, PUR également l'ensemble de ces partis-là accepté nañu nous fekk des Saybatu avec le mouvement KHOUSDEM rien que rien que pour l'intérêt général de la commune de nous mm-hmm. ñu Bolo, and Dor Dorondo, xatiendo Dorondo, pour que commune de SINYA jëm kanam. jafe-jafe population bi wàññeeku. metti won na parce que kone xamna élection locale dépôt bi euh, c'est un grand travail à faire mais vraiment avec l'aide de tout le monde vraiment def nañ ko ba paré ba ñëw déposer ci ni ba paré Yewwi Askan mom kone xamna parti yi ko composé. Il mhm. y a des partis politiques il y a des mouvements il y a. de société civile y a part y tout quoi. boo gisee ni ñu ko répartir sax euh, jeunesse bi gën na gis na ci boppam parce que vraiment surtout dans la dans la liste proportionnelle ni ñu ko tëralee. dañu dañu dañu favoriser euh, un jeune pour mu jiite ko euh, de façon pour ñu jox cër ji jeunes yi quoi.